sànq déchargé nañu le premier ministre moo tax nag dem ci jaay ak sénégalais yi euh, de l'Alliance la République parce que oui. la a xam ni suñu bëggee li fi Macky Sall bàyyi ñu te ñu ñëpp ñuy ñu ñuy nangu di ko wuyu di ko wuyoo à la kulli alin il faut que ñu def capacité de dépassement mais aussi ñu nga xam ni démb ak barki démb ñoo àndoon bokk parce que man Euh, Mamadou Awa man nangu ma ni tey am naa ëpp naa responsabilité ci action président mag Sall ku mel ni suma mag suma grand frère Mouhamed Boun Abdallah Dionne. il était même au dialogue. nang ma saluer ko itam. pour sa hauteur et sa responsabilité. c'est ah parce que nit da ngay gëm dara. la même chose pour mon grand frère Aly Ngouille ma jàpp ni euh, ba ci Mame Boye Mm-hmm. c'est la même la même famille ñu mu neex ñu ak mu naqari ñu qui la présidentielle mu neex ñu ak ñu naqari ñu war a leen rassembler wu créer un bloc républicain défendre li fi président Macky Sall teg ku ci nekk nag mën nga léegi dem ci li ngay dem mais au moins ku ñu xam ne les valeurs de la république war nañ koo mën a défendre et Amadou Otim déglu tirer leçon ci période yi ñu am ni yëpp xam ni coalition bi muy bi muy diriger ki ko dire durant douze ans ah c'est un homme exceptionnel. Mm-hmm. roy ci qualité bi yooyu roy difficile à remplacer. roy ci ay qualité am waxtaan ak ñëpp jéem a jubóog ñëpp ba ñu nga xam ne ñu defaat suñu bloc parce que à ce seul prix c'est à ce seul prix que nous pourrons gagner. mais loolu lañ koy reprocher en fait il faut pas se faire dafa am ñu muy waxal loolu lañ koy reprocher que daa am ñu muy waxal. oui vous savez xam nga nit. maintenant il temps de corriger. oui ku nekk ak culture am ku nekk ak jaar-jaaram. on ne peut pas euh, on ne peut pas dire à Amadou la même stature que Macky Sall qui a fait son syndicalisme à l'université militant de premier militant agi dem dans des périodes difficiles ñëw PDS s'est imposé nekk président des cadres dem nekk euh, convention régionale de Fatick mais c'est pas la même chose forcément lu ñu bëgg ci léegi-léegi gis ko ci moom mënut a nekk mm-hmm. mais il faut toujours ñu complémentarité Abdou Fall daf ko doon wax Abdou Fall dafa ne àddina bi fu ñu toll waa ministre d'État Abdou Fall suma nijaay dafa doon wax ni nañ politique de plus en plus leader yu mën a uuf ñëpp amatul àndu nawle rek mooy am hmm. mooy complementarité et c'est leadership de complémentarité moom la moom moo war a suqal ci Amadou gën a dawal euh, premier ministre Amadou Ba ñu doxal ànd ni quelles que soient nos divergences ay passé nañu nañu jàppalante parce que suñu àndul suñu diviser yàpp aucune chance pour que nous puissions conserver le pouvoir. mais loolu il faut am nañu jàpp ne ne pas avoir peur. parce que politique nag aussi. Mhm. politique aussi c' est comme ça la démocratie c' est mhm. le pouvoir le pouvoir appartient au peuple. le pouvoir appartient au peuple ce peuple là il faut aller vers ce peuple là essayer de de, de, de maintenir l' espoir ses craintes ñu ñu ñu wàññi ko xool ses aspirations ànd ak ñoom ci xeex bi mais amul kenn ku nga xam ne na fi ñëw dès le départ ne élection dama gagné te amul une bonne organisation l'appareil l'APR est un bon appareil organisationnel mm -hmm. le Benno est un bon appareil suñ ci defee ñun ñëpp suñu suñu comment vouloir dindi les clivages personnels mais les derniers mois de vraiment bëri na turbulence trop ah oui c'est vrai c'est par moment compliqué mais dama jàpp ne c'est ça aussi la politique te amul benn coalition tey moo xam nga loolu sax ñu am division après ñu waxtaan ñu juboo moo gën les unités de façade que parce que ay. façade man bëri bi unité de façade <laughs> cest ay bëgg mer ngemb ngemb si ginnaaw nit yooyu yooyu on sait ce que c'est en politique te gis nga en politique y deux choses que les gens oublient. Mm-hmm. xel kenn du ko délégué xel xel ak xam-xam kenn du ko délégué mën nga ci maye nag mais doo ko délégué. Mm-hmm. ak base. Mm-hmm. parce que base bi sénégalais ils vont choisir. et les profils vont se montrer. ku ci nekk du ay xasaate kay lay da nga profil bu nekk dañu ko xool xayma ko sénégalais dinañ seetlu gaañ yi ku ci nekk ci waxinam ci jaar-jaaram ak lim mën en ce moment les sénégalais parce que ñu nekk ci politique yi sur les 7 millions yu nekk ci fichier électoral ñu nekk ci politique boo xoon tey parti politique wax nombre de militants du dépasser 2 millions tous les partis réunis militants. Mm -hmm. donc c'est voilà donc il faut parler aux sénégalais. et ça aussi. ça a besoin d'une communication offensive et xam aussi yan réseau de communication la ñuy utiliser ba atteindre les les les masses. ah Abdoulaye Seydou Sow.